nga daan Paul Maurice gën a am coow nag. gën a am coow. gars di wax fu ne combat yu baax yu ne. ñu koy wutal Tonnerre Pikine nag ngay toj di toj yëmbal di toj Pikine te après succès boobu nan nga man moom ndeysaan xam nga ay succès yi nii nit ñi wax rek man mosuma koo dund barki salaatil faatiha ay succès bi wala affaire yooyu man duma ko sax bàyyi xel billaahi daal xam li ma gëm. mooy li ma nekk naa si nekk rek. billaahi mais succès moom wala may taxaw di jaay di ñoddi yoo xam ne amul loolu moom mosuma ko def. waaw. mais après sa dañ ko yi dañ ko doon wax nii rek comme amateur li ñu ko doon wax mais promoteur mosuma si woo wax ma si. Mhm. ay wala Balla Gaye mhm. nit musul woo wax ma si ba ma daana Yékini Junior gars yi ñu doon dawal rumeur noonu rek. Mhm. waaw loolu moom ndeysaan bis bu rëy la woon billaahi bis boo xamante ni bokkoon na si bis mu gën a marqué si làmb mooy jouru combat combat boobu noonu. billaahi. mu nekkoon combat boo xamante ni. Mhm. ñu bari sax loolu moom lañ ko joxoon. parce que fi mu mhm. ak écurie Dakar dafa doon toj. waaw dafa doon toj. waaw dem états lañ doon wax may na ko visa 10 ans. Mhm. états Junior moom ñëw. def fa mhm. xam nga xam nga tey jii ñi xam làmb dëgg xam nga làmb am ñoo xamante ne ay lañ am ñoo xamante ne ay supporters lañ mais ñi xam làmb di dund làmb xam nañ ni man maa mënoon Yékini Junior. yow te yow amoon nga Mohamed laa la waatal nii barki Bañas Yékini Junior moo la gën a xam ni pour maa ko mën. ku ne ma la man boobu noonu sama bët sax nekkul woon ci moom mais dama ne naa ko jël rek parce que combat dina am buzz man ne naa ko jël mais ñi ma xam dëgg ak waa Pikine mbooloo xam nañ ne man maa mu gën a daq bëre yi gën a junior maa ko ëpp doole. leneen kenn la doon xalaat mais du question bëre ba wala doole wala fit gi. waaw préparation boobu ah, préparation boobu moom métti woon na parce que am na loo xam ne maa ko bëggoon ci combat bi. te fi ma nu ma ko bëggee woon sax combat bi demeewul noonu parce que dama doon sóoraale mun nañ bëre ma ak moom bëre bu métti léegi dama doon su ma yeewoo dem Pikine entraînement fajar bi su ma ñëwee damay ndékk ba pare demaat géej heure naaj bu tàng bi da lu ma liggéeyaat foofu noonu nga xam ne lii nii may liggéeyaat fii nii géej moom moo mun a may si combat bi li ma bëgg di kontaagaat foofu defay action foofu di léeg mu dugg si ndox bi génnaat ñu def loo may affaire barki arxuraanu kërim dem naa ba su ma tiflee sax léeg-léeg mu xaw a ay deret ma xam ne damay dog ma ne naa muñ rek parce que combat yi ma jëm nii laaj na lu ne comme moom jaral na ko baxeen man dama jaral entraînement yi métti. Mhm. Mhm. ay teg tonnerre. waaw xam nga ñu bëri lu tax ñu teg si Yékini mooy li ko mbër bu mag di indi rek te ñun Pikine mbooloo moom mbër bu mag moo ñu yor mais ñu bëri xamuñu loolu. Pape Diop moo ñu yor grand champion la. barki moo Mohamed naanaa na ngi noonu père boobu. billaay lu mu la wax si laa ma tax ko téere pensaay dangay gis ni toog si tele di wax di wax wala ñuy werante ma xam ni li ñuy wax ni sama père moo ko gën a xam lu si ëpp sax su ma réeree si dama koy woo téléphone mu wax ma lii ak lii la war na yàlla combat Bombardier Modou mu paasee ba Modou di sukk noonu di yëkkati euh, Bombardier mu diis damay dugg si néegam rek mu ne ma bii lee su doon yow la day jóg. ma ne ko ah père mu ne billaay walaay soo ronoon Bombardier nii. Mhm. soo siggee moom di tànk yi fa lay dal. ndax la non parce que daf ma xam moom daf ma sama mënin la. léegi nag te boobu ñuy dugg si noonu jour boobu ba rek arxuwaani kéem dama ko booy ma àndaloon bi fekk maa ngi dawal nii ma booy ñi nga combat boobu noonu barki salaatil faade solo man la dama doon a Bombardier day jóg. billaay ñuy werante noonu si oto bi ñu ñett ak benn copain bi ñu àndaloon mhm. dama dugg si kër per rek tombeeg bantamba ñu koy rediviser vendredi rek ma dugg si rek yam si loolu man ah père kii su doon man la kenn waxatu ko mënum billaay su doon yow day jóg. mën a gars gis ngeen léegi laa doon wax si oto bi. Mhm. parce que dafa xam sama mu mhm. mag indi ko. Mhm. ay ñoom Malick indi ko. léegi après yow psychologiquement. est que tonnerre yaa ngi doon kii carrément. fonctionner wala yaa ngi doon nekk. waaw yaa ngi doon nekk. billaay wallaahi musuma sax bàyyi xel si loolu ñooñu ñooñu ñëpp parce que tey jii ñi ànd ak mbëri nekk cent personnes wala cinquante personnes ñoom ñëpp bëriwoo ak ñoom yow mbër bi ngay bëreel kon yow nana mbër bi ñor mais ñu bëri loolu moo leen di perdre si làmb ñu naan dañ ko jàpp ci sëriñ wala dañ ko mun si gàllaaj déedéet. parce que dañuy indi bombardier day indi mbër ñii bombardier moo koy indi wala Modou Lo indi mbër ñu ne Modou loo moo ko indi mais Modou loo bëriwul ak moom Bombardier même chose bëriwul ak moom waa ji ngay bëre ku ne da ngay def sa xel si waa ji man ba may bëree Yékini Junior bàyyi ma xel Yékini bu mag bu ndaw laa bàyyi xel te moom laa doon siiwër même Yékini bu mag sax boo mu duggee si làmb ji loolu laa ko wax dama ko yee eh, kii tey jii mun a wax ba du tëdd mu ne ma fils ngay wax waaye ma ne ko kii koy daan mu ne waa baax na yow bànnee nga rek daan may tàpp noonu ñu bëri tiit sama cimukaay warul woon laal ki warul woon laal. man na ko waaw man na ko yee kii bëriwuma ak moom kii laay bëreel laal bi mu laal loo leen wax laal di ma jéem a déconcentré mhm. kii tey day tëdd te arbitre day tëdd. Mhm. comprendre mais su ma toppoon loolu sax man mun na ma déconcentré mhm. mais dama leen loolu yëpp garaawul. léegi waaw Tonnerre nekk à gauche Yékini Junior nekk à bi nan ngeen ko bëree yéen ñaar. waaw parce que Junior man dama jàng léppam. man xama mbër sax du ma am ak moom combat li seetaan ay combaam am mais Gris Junior dama dugg si kii bi seetaan ay combat am xam force am xam lu muy proposé gars yi xam lu muy forcé mais action mi bëri dina baax mais day forcé loolu léegi man si loolu laa pare woon man combat mu suma xalaat ni si xeex lay jeexee mu doon xalaat bëre te li mu doon indi si bëri loolu laa préparé woon pour indi tegal ko ko comprendre na sunu bëre woon mu jeexee si bëri dama koy daan jël bu rëy barki Seydina Mohamed. dama pare woon si lépp léegi nag ñu taxaw di léewtoo ma may léewtoo moom di ko jàng ma xam ni moom su fixé woo rek day dóor su fixé tànk bi su fixé tànk bi cetu baaraam bu mag bi da koy samp dóor moo koy jàng di ko jàng dama ko doon def sax ay image di ko zoom di ko xool si loolu ak mbagg mi ni mu koy def saa yu demee ba fixé wu ma déplacé wu ko tuuti mu déplacé wu. gisoo dama fixé wu rek ma jàpp loxo bi daa fixé wu rek ma sëgg tombé coup bi romb boobu coup bi romb ñu ñu jiwaloo ba mu jiwaloo damantaay baaraam si la bàyyi sama baaraam rek mu dugal ko ñaar épicule ñaar épicule yooyu ma ko dugal si suuf nag ñoo jeexal làmba ji ñu xam xamuñu loolu waaw. dafa dama ko dóor benn pang dóoraat ko benn ñaar léegi deuxième bi nag moo ko sonal léegi nag boobu muy ñëwaat si man sax boobu moo ngi commencé damm. Mhm, waaw waaw léegi nag boo mu ñu boo mu fixé woo si laa jiwaloo moom. comprendre nga ñu dóob fëggante ay coups ba ñu fëggante ay coups man boo mu ñëw si man boobu noonu instant bi moom perdal na mais boo ma dalaatee si kawam laa xam ne kii am na lu mu dese tuuti. te comprendre te moom it naanaanu te moom it aussi naanaanu bërikat la daal di koy fàqaat léegi boo mu ñu fàqantee ñu bàyyante ñuy dóorante gauche droite moom muy dóor mooy dóor. man sooy seet sax ku yu ma doon dóor ku ku yaa xam te ne daan dóor moom ku yu mu doon comme ku yu mu doon dóor moo gën a baax yu mu doon yi ma doon dóor parce que moom ay coup direct la doon dóor man may def ay laaw comprendre nga mais boobu instant moom 100 pour cent ba nekkatu fa daal waaw. après si laa dóor dóor si laa dóoraat ma xam ne kii instant yu bët yaa ngi gisatuma per bu per bu euh, ñuul bi lu lépp weex na ma xam ne kii mu ngi kaaw quoi waaw daal di forse ñaar rek mu daal di egg suuf daal di daanu. daan nag gars yi xam nga kontaan gars yi gëmuñ ko ñu may ni woon am ñu ma damaa soxor am ñu. am ñoo xam te ni sax. Mhm. dañu dafa soxor bi mu ko daanee affaire yooyu la manière quoi ñu bari kenn yaakaar ko woon mais man mii doon bëre sax yaakaar ma woon ne dinaa ko daana jël bu mel noonu parce que man man bëri laa doon xalaat comprendre nga. boobu nag boo ma ko daanee bu rëy boobu ak mbër bu mag bi koy indi woon sama ca toppee nag ca toppaat ma. tuuti noonu. parce que dañ mhm. def loo xamante ni. Mhm. Mhm. Tonnerre ñëpp waaw gars yi de ñu ma doon wax na dañuy bëri ak man dafa bëri woon. waaw mais xam nga yi pensaay dañuy wax affiché combat nii rek mais duñ si wax. man moom sa manager moo may woo. ma doog a gëm ni combat bi ñoo ngi siy wax. Paa moom su ma woowee ne ma fils mu na waa père lu xew. mu na ma yàgg diw la ñuy wax mën na ko indaale avance bi man loolu laa ak moom du ma ko sax laaj loolu la fay ak loolu la fayul. combat sa combat ak Yékini Junior dafa amoon ay récompense que ni ku daan di nga am un million yooyu yooyu da ci amoon. ndax yooyu moom franchement amoon na simp moom ba ma bëree ba si moom indi lañ ma million ba fii. Mhm. laaju moo ko déplacé wu ma man fàtte woon naa ko sax dama ba suba si. sëñ Modou moo ko tëggoon. Euh, am sëñ Modou Niang moom doomu ndeyu Magnick Diop suus la. Manick Diop suus moo si tegoon un million ne ku daan dina may un million boo ma daanee deux jours Pape Diagne bu Seras moom indi un million yi bu fii waaw puusuma paasuma ma may ko si ma ko si may ma may ko xaalis bëri waaw parce que un million yi man fàtte woon naa ko sax waaw. après dem nga Bercy. après ñu ma dem Bercy ñu may ma benn personne ma yóbbu sama xarit sama wëlëre ma ne ko garaawul yow yaay dem mu gëmul woon sax moom mooy dem. waaw jamono yooyu affaire yi métti woon na mais chaque jour ngay xool rek ki nga xamante ne couleur la si yow comprendre papa moo ma jël euh, mais en main yóbbu ma écurie Pikine mbooloo te si moom laa doon liggéeyee si benn entreprise si moom laa doon liggéeyee papaam teg ma foo xam tegu fa doomam yi ni mu su ko jur su jàppee sax su ko doomam yi ñaanee dañuy bañ man su ma ko ñaanee day nangu. mais amoon problème choix que ni man naa yóbbu sama moom bëggoon naa yóbbu sama mag wala sama rax comprendre mais jamono yooyu ñoom ku ji li ma doon jëriñ gisuma woon kenn ku ma doon jëriñ kon su wërsëg ñëwee tol noonu dañ koy séddoo moom parce que loolu mooy àndu nit dama doon yónni ay bayaax ak lépp muy dugg si oto yi da doon tëj magasin am da doon jaay ay ciment ay fer dama doon am combat muy tëj magasin am di dem ay bayaax ak fu nekk di wuti ay sëriñ. day ñëw ne ma sangool bii tey sang taqal bee bii géej nga ngay sango bii nii loolu laa am si affaire am te day yëkkati xaalisam di ko du ko si def kon loolu su amee rek kon moom war nga koo jox lim moom daal waaw. après ñu gis ne ba nga bëreeg Yékini Junior hmm. xam hmm. a avancé hmm. fi Papa waxante ngeen fi. Hmm. dana bu combat boo xamante sax dafa dem mujj gi gars yi fañ ko doon xaaree sax daf koo dépassé sa combat ak Papa ak pourquoi Papa Sow. waaw man moom xamal sama manager moom daanaka laa dénkoon sama lépp parce que amoon problème de choix parce que sama combat Papa Sow dañ ko wax rek mën na ko comme Papa moom waa ji xaritam la te bëgg na ko jël revanche suñ la fayee lu ko jar rek jël ko. nekkul risque après bëgg ko dugaat. nekkul woon risque nee naa leen euh, jamono yooyu li nekk si man nekkul si booy yi may gis yëpp parce que booy damay toog di seetaan seen combat parce que xam naa li nekk si man nekkul si ñoom combat maag Papa Sow xam naa ne du risque risque risque bi si moom la nekkoon parce que moom gis nga li ñu bëre maag moom. combat bi taxaw na bëri na coow bëri na préparation ay saagante ay waxante lu ñaaw comprendre nga mu jig waa koñam di ñëw fii sama waa koñ di dem foofu mhm. affaire yooyu yëpp amoon si combat bi comprendre nga. Ah, am ñoo xamante ni sax comprendre nga boobu combat bi jeexee li si feeñ yëpp dafa bëri mais ma xam ne lii mook làmb ñoo ànd du ma ci mere kenn. Euh, déggoon nañ sax benn instant ñu ne combat bi tonnerre am na ñoo xamante ni sax ci koñam yi dañ koo jaay. waaw loolu yëpp da ko ciy dégg ay kii jaay na ko yóbbu nañ la sa benn dalu plastique ci papa saw yóbbu lu nekk day réer mais nga xam nga kër fa kër famille moo mel noonu rek lu nekk day réer sama da ngay teg sa entraînement sax dootoo gisati. da sa benn frère boo xam te ne man moom sama frère yi moom non non sama yaay moom faraloon Papa sama yaay moo jur moom dana woon mbër waroon jël Papa Sow Papa Sow mooy sama mbër. wax naa la moom mu sa nekk sama mbër mu ne ko waa ñaanal ñu rek parce que ñu ñaan ñëpp say doom lañ xam moom parcelle la yoon restaurant. mais ça dana ma mbër gis naa papa saw ay xale boobu dafa yaru dafa baax man mooy sama mbër affaire yooyu léegi ménagère papa saw bi si maire bi la doon añee nag léegi nag boo ko baa bi taxaw ma mbër tey moom sama doom ñi laay faral ma ne ko waaw léeg sax damay def benn buggaan sax si kër gi mu ne damay woo papa saw de fekk combat dara xewagul woon comprendre nga boobu combat bi demee ba jege si nag comprendre laa xam ne kii man la faral parce que ndeysaan li ñuy wax si affaire yu njureel dafa garaaw nga xam naa ni maire dama ko doon mbalagee mais moom Papa Sow moom mu sa nekk mbërëm waaw mais boobu combat bi jege see nag xam naa ni kii man la faral parce que ma naan mbër baa def ngay ñaan baa dem nga fii combat bi gisuma ngay sangu sangu li nga doon sangu fajar yi lan mooy xew mu ne ko dara xewul maa ngi ci de combat bi laa gën a respecté comprendre nga gaa yi sa nañ doon garder koñ bi fii affaire yooyu noonu. mais xam nga rek combat moo diisoon tolloon noonu aussi tamit parce que jamono boobu ñu ñaari naanaan ñoo war a daje. ba da ngeen tolloo dañoo tolloo taay tolloo bëre tolloo doole. tolloo soxor tolloo fit. lépp ñoo ko tolloo la woon da di dóor. mais moom lu muy kaaw moom bëriwul moom. moom du kaawoo moom man maay kaawoo moom du kaawoo. loxo xeexkat mais loxo bi dafa oyof loxo bi moo oyof. <laughs> loxo bi moo ndaw. waaw ah, waaw waaw écurie Fass indi ko indi. indi ko per Tafa te père Mbengue père Tafa yëpp samay père lañ. Mm-hmm. xam man avant may dugg benn igri igri Fass laa bëggoon njëkk dem. parce que igri Fass fii ñoo ngi ko doon taxawal taxawal ko ñaay ñaay bu fas père euh, Pape Gueye magu Tafa moo ko taxawaloon mais jamono yooyu nag dafa dajale woon naanaan yi nekkoon fii yëpp. comprendre nga te boo ma dajalee naanaa nag man la si gënoon a teg si kaw ñu bëri commencé si si loolu parce que da doon toog bu guddi sax mu dox nànk tànkam ñëw fii ñu toog waxtaan ma jënd cere wala ma jënd affaire ñu coob après mu demaat mais bu jamono yooyu bëgguloon ma rëcc euh, Fass. parce que moom bëggoon na ma yóbbu Fass xamoon na qualité yi nekk si su ma Fass amoon rek jamono yooyu day am naanaan comprendre nga léegi nag muy topp si loolu jamono yooyu si la si demee France nag bu mu demee France nag. sama numéro perdre ko looloo tax ma dem Pikine mais moom bëggoon na ma amoon na fu ma teg man xam naa loolu te man couleur laa ànd ak doomu aadama ko waaw nga dem stade nga war a bëri Papa Sow. Mhm. Tonnerre gars dañ cee waayadi. Mhm. parce que fañ la doon xaar. Mhm. gisuñu la fa parce que arbitre sifflé na. waaw ngay fërëng fërëng yi. fit bi nekku fa. yow pourquoi sa combat Papa ñu dem ba sax nga sonn jeexal ko. dóor no non non que combat boobu ndeysaan xam nga léeg-léeg man xam la laa gëm nit soo koy conseillé benn affaire chaque jour di dekk ko conseillé mais dañoo dem ba si biir di ma xaarloo naa ma taxawal di déglu ko bul song bu def lii man bugguma loolu si bëre. comme niñ man xam la laa gëm su arbitre bi sifflé sax nga def affaire baaboy numéro un yooyu yaa ko mën nangam taanal jug ndeyam jugee fi yooyu laa doon séntu si combat yi man loolu loolu conseil yooyu laa bëgg. ki gaynde daanal kii ñu dem ñibbi oto bi tàq na yooyu moom may soulager. waaye ay mbër mbër bu ma ko ko indi ay xaar kook yooyu mën na leen yooyu amul soo déggee si combat bi sax soo seetaanee combat bi di nga dégg samay baatu entraîneur ay xaar ko bul dem taxawal nii loolu day yàq bëre ki da koy bàyyi man moom sama bëre moom soo ma si bàyyee moom doo si gis loo mais soo ko changé rek sonal nga ma quoi. Mhm. combat bi loolu moo mais du question dara daanaka sax affaire yi moom soo si waxee bu yàggee dañ lay yóbbu foo xam ni yow yeggoo fa suñ ma bàyyi woon sama mën ne na ma mbër général combat bi ñu dem ñibbi billaahi wallaahi barki Seydina Mohamed yoo xam ne Papa Sow soo xoolee si combat boobu xam ne ni moom ñemewu ma parce que Papa Sow ku musaan bëree moo lay diriger mais bii pour diriger wul daa jël tànk bi mënu si dara mu wàccee ko def rotation mo di ko topp mu def rotation mo di ko topp mu dem jeexal moom sax daa toog moom. mais oh. boobu moom boobu moom xam sama yaram tàng na xam ah, nga léegi léeg-léeg les combats non non non barki salaatil faatiha loolu sonal ma billaay wallaahi barki Seydina Seydina laa la waatal jeexalu ma mhm. benn combat dafa mën a jeexal nit mhm. gars yi ñooy wax loolu rek mais benn làmb yaag sa moromu góor war ngeen bëre 45 minutes kenn du jeexal mhm. comprendre parce que entraînement contact moo gën a métti combat yi léegi après xamal léeg-léeg di nga def benn affaire sax soo paree ngay comprendre léegi gars yi naan dañ laa xabtal nga dóor ko wala affaire yooyu mën na comme jeex na si jàmm rek garaawul affaire yooyu. boobu moom war nañ ko bëriwaat ma Papa Sow. Mhm. mu leer waaw mais ko paree tëkk pour. combat boobu laa gën a yaaxamte parce que combat boobu ku nekk dafa war a nag nga lañ. looloo war loolooy neexal combat boobu. jeexagul ba léegi. jeexagul si man boobu. mais daan. non par décision arbitre. nu daanee mais yëgul sama kaw. moom moo toog suñuy seet mm. waaw. mais drapeau bu ko jox. drapeau bi moom moom lañ ko jox mais yooyu drapeau man du ma génn sama kër. nga bëreeg ko Sow. Mm-hmm. Papa Sow daan la. Mm-hmm. coow li bari. Mm-hmm. ñu suspendre la six mois. tonnerre sa yat nga attaqué di wax rek. gars yi pourquoi war loolu. non c'est boobu doo tàmm wax sax mais PSA nit ñi ñoo lay wax loo quoi da ngay dégg kenn wax lii kee wax lii kii wax lii ñi naan. sa xarit bi moo la jaay ñi naan sa dëkkandoo bi moo la jaay ñi naan ñi ñoo la sulal ay galaaj comprendre nga yow da ngay dem ba da ngay jaxasoo quoi mais après yow yëpp da ngay ànd ak sa ngor rek ak sa dignité dignité waaw. bañ la ajee six mois. ajee woon parce que boobu maa ngi sama reliquat fay nañ ma maa ngi téye sama million sama poche di ko sirité par nànk-nànk. Mhm. six mois yooyu sax day neex si yow day mel na nga nekk vacance. Mhm. da ngay toog sa kër seetaan say film seetaan sa mas mais mhm. saa nga dem daw ji tàngal yaram bi ñëwaat toog. bu aj bi métti si aji gañ mooy aj boo xam ne la aj yoroo dërëm mais aj boo xamante ne yaa ngi serré ka ay millions loolu du métti yoo jëndee ay trois saako ceeb ak yu siy dem da toog rek croiser le bras. Mhm. Mhm. nga jóge ci Papa Sow. Mhm. man xam nga ma jaaxal da fit. am fit moo tax yow après combat yu rëy rek nga jël. su ma jugul ba nga jógee ci Papa nga jël xale boo xamante ni. jëlu Sa Thiès. jël naa Sa Thiès ba mu jógee foofu waaw. mu nekk xale boo xam ne dafa nekkoon ci yoonam. Mhm. ñëpp ne tonné ba pare seen koñ yi dend. moo ngi nii di dégg waxtaan bi keñ waaw. waaw koñ yi dend. Mhm. am ñu ne sax am na ñoo xam te ne dañ doon fréquenté tonné ay xaritu saalif rek. Mhm. combat bi ñu dégg ci lu ne. ay affaire musique dégg nañ ko ci. combat bi daal tonnerre daal na day jël booy bi booy bi nekk si yoon. nekk na ko Balla Gaye doomu Double Less. yow kii am papa bëri am mag buy bëri. Hmm. kii amoo kenn kuy bëri nga ne da jël kii te pare dugal si torof torof tonnerre. waaw boobu pourquoi Sa boobu moom nee naa la man yooyu moom du ma ko suur si làmb. ay kii am na boobu instant boobu moom bëggoon naa combat pour ñëwaat xam naa ñu ne ma Sa Thiès ma ne leen garaawul na ñëw tamit li ma bëri woon na Papa lu toll na ñu fayaat ma ko si booy bi. ñu naan non boobu non boobu fekk na gars yi waxatuñ la benn combat ay combat yoo xamante ne ay àll ba lay wax ay Louga ak ay Casamance ak ay jawbe mm-hmm. man yooyu daal gaan naa jël booy bi mm-hmm. après laa jël booy bi combat bi métti lool préparation huit mois nga préparé ko dem ba jeexal tax tax tax te jàppale bi tamit aussi demee noonu yëmbal fii da ngay reeba mm-hmm. waaw nga dem Demba Diop waaw jël ko dem Demba Diop combat woo tamit gis nga nu mu demee loolu moom du jël dara daanaka ah lan ah, parce que yow gisoo ko baaw nu demee dañoo fax dañoo jàpp mu dóor mu dóor ma xam naa day ñëw mu ñëw ma bal ko sànni ko ba ma koy sànni nag benn téereem bi moo moom ma lonk si bopp sama jébi tuuti moo laal suuf. Hmm. kuy julli sax moomee dana taqale noonu suuf. Hmm. après gars yi jox victoire bi. boobu moom moo ma daan sax garaawul parce que sama jëbi laal na suuf. Hmm. mais combat boobu moom du combat dara. jàppee ma ko dara. jàppee dara. waaw bëgg ci saa jël euh, boobu dama ne woon damay déclenché wu parce que ah. garga maa ko mën. mais tonnerre noo xama xama tey jii yàlla su lay teg ay nattu moom eh. tànk jeexalu ko du jeex. léegi jël garga ba nga jël dama ne taxuma jël garga parce que commencé am na tuuti coow dinaa ko jël defaru defaru ngaaxa eh. léegi ma jël ko moom it mu tegal ma ndëgg sërëx ma ñëw dugg ci. Eh. mu daan ma. ma pare si boobu. ni taxaw ma dem jëli Moussa Ndoye moom moom moom foofu moom day nooy moom gars yi na ma noo Moussa Ndoye la amul fit ma ne baax sax. da ngaa nooy. ma ne mooy man daal naa jugaat ma jël mu ah. ñëw Moussa Ndoye. yooyu ah? yoo xamante ni kay ay espoir yu ah. baax lañ. Mhm. ma jël Moussa Ndoye tamit foofu xaw a dëgër. ma pare si non Moussa moom parce que arbitre dafa sifflé. maa moom ñu taxaw di taxaw di taxaw ma ne maa dem teemaa taxaw ma hésité comprendre léegi mu dóor ma ñaari coups ñaari coups yu ma njëkk a dóor nag moo ma perturbé ma kaaw nag. da daan kaaw waat tey nag ñu lay kaaw rek. léegi boo ma kaawee ñu ma ma dem si arbitre bi. est yow après ba nga jógee ci Yékini Junior ba tey est ce que trois kaaw tegle woo fi trois kaaw. non deux la rek. waaw deux jam ceeri kaaw na ma kii tamit kaaw na ma Moussa Ndoye waaw mais Moussa boobu ma kaawee dama arrière arrière muy daw di ñëw ma daal di daw wane ginnaaw boobu tamit dégg naa lu nekk ma muñ rek gérer comprendre nga léegi boo ma demee si euh, kii bi euh, arro ardo bi ñëw xool na ma lan la ma ne ko doon xoolal ma xoolal xoolal xoolal ma fee rek joxoñ ko ne ko fee la dindi prothèse bi mu ne ma noonu du dara demal mais foofu sama entraîneur moom waroon na téye topp ma ndox jéem a wut benn zaaru lu ma noonu jàngoro bu ma wutal rek ne ma bëñ ba la wala affaire yooyu la. Ah, su ko defee su ko su ko defee ma mun a replier waat mais ba ma dellu replier waatu ma. noppalu ko defoo maanaam sama cerveau bi tranquille ñëw mu woon à 100 pour cent. comprendre foofu moom rôle entraîneur la. parce que yaa waroon téye sax ne ko non xoolal ko bëñ bi wala xoolal ko lii taxawal ma may ko ndox. mu galaxandi ko deret bi affaire yooyu. defaroon daal. waaw Tafa foofu la mu ne ay entraîneur yi Tafa Gueye day ñëw sax xool la dina la nii naa indi la ay problème moom. comprendre nga mais foofu la entraîneur la la demal demal demal balaa ñu laa dagg léegi yow nga dem ak sa kaw nga ñëwaat te après yow doo gis dara da ngay làmbatu rek. combat boobu loolu moo ko ñaaxaloo. nga hmm? pare. day dinañ jël. booy booy boo Mm-hmm. nga jël oh, xam moom tolof tolof moom suy ñëw day ñëw rek tant que jeexul jeexul. non boobu nag naa am combat bëggaat naa bëree xam ak toog bi ma toog yàgg na ma naa ko jël rek. Mm-hmm. bu mu ko jëlee tamit mu kaaw ma. mu ne garaawul. Mm-hmm. ñu def foofu tuuti kéem. parce que da tegle six cinq défaites. jigéen mm-hmm. jigéen ñi ñoo ko yàqal parce que dafa bëgg femme mm-hmm. deuxièmement ñu ne entraîné lu ko war troisièmement ñu ne fonkatu ko mm-hmm. loolu danga ko doon dégg mais après def si yow ak nag ko ko doon doxee ba pare ñu jàpp ñu doon jàppale Tonnerre gars yëpp dañoo rocceeku parce que ay defet ak bari na loolu yëpp nga koy dégg en tant que mbër waaw loolu moom dina métti xamal laa ma sax xam luy gën a métti mbër si làmb ñi sa sew rek su la wanee ginnaaw looloo gën a métti ay defet ay trahison am ñoo xamante ni dañoo sa sew rek nga leen defal lu nekk booba affaire yi neexee su demee ba naqari nag ñu wut fu ñu dawee wala ñu wut la ay lay léegi ñooñu suñu la bàyyee nag looloo lay gën a métti ñi la doon jàppale moom dañuy jàppale rek te yàlla tax suñu bàyyee garaawul mais ñi doon fréquenté di ànd ak yow di bokkandoog benn ndab boo leen coobee ñu won la ginnaaw di la wutal ay baatu ginnaaw ñooñu. ñooy génn di wax ñooñu ñooy génn di wax xamal la say secret ñoo ñoo lay gën a métti sax que ñi la doon jàppale ñi la doon jàppale seen xaalis lañ yor rek di la jox. nga leen tudd si la télé bi ñuy kontaan di la may xaalis su leen tuddatul si télé bi duñ kontaan duñ la jox. mais am ñoo xamante ne dañ lay jàpp te yàlla tax am ñoo xamante ni dañuy nekk si yow te yàlla tax nga am défaite dañuy jàpp nga am victoire dañuy jàpp ñooñu ba léegi maa ngi ñoom waaw. ñàkk tey waa xam Sénégal moom dañoo baaxoo benn affaire nit ñi dañuy wax dañuy wax rek ku amul baatu ginnaaw amul jigéen amul ku ne da bañ ku ne bañ jigéen bu mu tax a jabar. mais loolu dañuy wax rek parce que dañuy fi gis ngay dund affaire de kaana yokk sa taal sa oto yokk sa ay musique këng këng léeg nga dem benn place noppalu jël sa temps ñu ne dafa bëgg jigéen. non nit ki pensaay foo ngay dundal sa xol pensaay di fu def yu fa xale tuuti mais dafa bëgg jigéen nit musul gis man ak jigéen yëmal fii nit musul gis man ak jigéen comprendre nga nit nga am gel comprendre nga kuy dund di nga am koo bëgg comprendre nit lépp loo mën di def sa àdduna ngay imaam ngay sëriñ ngay wàll yu di nga am ko bëgg comprendre nga léegi su la gisee nga ànd ki nga bëgg la ñuy wax dafa bëgg jigéen non nit foo nga am ko nekkal par force loolu moom moom moom kenn mënu si dara néew neel kii moo amul ku mu nekkal si àdduna amul ñëppay am koo nekkal nit ñi nag dañuy wax am yëmbal moom léeg day suul naanaan gars ñi war a jàpp manko ñoo dul jàpp dañuy wax rek. Mhm. waaw staff bi moom daanaka ba aw ma staff aw ma staff parce que staff bi moom boo muy neex dana ñëw mais boo mu naqaree gisatoo kenn. comprendre nga man dañ doon am combat ñu réunion laal basan basang bi fees dell am ñu taxaw ay kilifa combat bi lii ak lii lañ war a jël si super lii ak lii lañ war a joxe regroupement lii ak lii la mbër bi war a def si poosam pour jënd gasoil comprendre nga nga ne ñii dina la jàppale mais soo amee benn défaite basang bi dangay lal di gis ay espace nga amaat ñaari defet basang bi soo ko lalee doo gis kenn ay cinq personnes ngay gis nga am ñetti defet dootoo lal basang sax dootul lalati comprendre nga nga xam ne am na ñoo xam ne loolu la àndeek àndee nit nga xew comprendre nga mais am ñoo xamante ni tey jii ñoo ngi ma jàppate yàlla tax lu ma soxla woon ki barki moo Mohamed fii nga toog nii mun naa leen woo téléphone dañ koy génnee jox ma. kon loolu sant yàlla la. kon problème staff la. waaw ah, problème staff da ciy joué parce que tey jii léeg-léeg nga bëgg génn nga manqué carburant wala nga manqué loo joxe sëriñ wala sëriñ génne loola sarax doo ko mën a def parce que doo yor loolu.